assalamu asalaamaaleykum sit internet yi maa ni di len ziar rawati na wa melokan TV di wax ni yene fi seen eut keur diine yi tay ni nga xat ni dal ki nga xamanteni ni moy mooy sëñ Mor nga xamni kan kenn ko presenter ñëpp xam nañ ko ci ñaanam ci baatinam ci lepp xam naa bis bu ñu ba ci biir da ngeen xam kan moy sëñ Mor kon mbokk internet ni ngeen di bayyi ak sëñ Mor mu nuyoo ci sogu a dugg ci waxtaan bi assalamu asalaamaaleykum sëñ Mor. alaikum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk juliti mbokk talibe yi ñi ngi leen di siyaar di leen jox seen yéeguwaay ngi jëmmi suñ Tuubaa ak Seera di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm ci barkeb Jaalibatul Maraaxib vi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw jërëjëf sëriñ Mor si li bala ñoo dugg si émission bi si li nga daanee rek laa la bëgg a laaj lu muy tekki quoi batul Maraaxib <laughs> waaw laaj nga lu am solo nag ndax Jaalibatul Maraaxib xasidab sëñ Tuubaa la ndax ku ko xamul dégg nga ko ku ko déggul xam nga ko ndax jaalibatul maraaxib dañ naan sammaytuha jaalibatal maraaxib fii haajilin ka haajilin li raaxibi day bind moo xamante ni sëñ moo ko bindoon bàyyi woon ko ca géej ga nag ab tubaab bu xonk cuur daat koy for bi mu ko foree ba noppi ne lii de mbindum sëriñ bala ñu daat ko koy indi njaarem jox ko ko nag mu ni ñaan gu nangu la lam bëggoon si liggéey bi am na ko loolu mooy tekki jaalibatul maraaxib te day loo xamante ne jëmmi yàlla la waaw jaalibatul maraaxib leneen la moom leneen la <laughs> waaw leneen la <laughs> waaw yàlla waaw si li ñuy njëkk dugg que bu nee sëñ Mor rek mhm. xel yëpp day dem si naan sëñ Mor moom mooy faj aajo yi mooy mhm. lijjanti aajo yi mhm. lan moo tax nit ñi taamu sëñ Mor waaw ndax yàlla Cheikh Mor mii nga xamante ne moom la nit ñi taamu day koo xamante ne day séeréelu morola pire si ndey si baay bàyyi day séeréelu morola nday di séeréelu morola maam di séeréelu morola kon loolu cosaan ga la ndax samay maam dañuy faj ba sunu borom yàlla dogal ko suñu jëmm ji kon lu yàgg lu nekk su fekkee lu baax la dëgg la ndax lu dul dëgg nag du yàgg te dëgg moo njëkk moo mujj te ku dul toppee kenn du la topp te ñaan gii nii saa borom yàlla da see def cër goo xamante ne am na tàmbale waaye amul yemukaay waaye nag képp ku ma jëflanteeg yow sunu borom yàlla dina faj sa saa saahir ak baati ndax loolu ndimbalub yàlla la kon dañ koy sante yàlla saa borom ci barkeb jaalibatul maraaxib mi nga xamante ne moo ñu def li tax ñu naan Cheikh Mor jaalibatul maraaxib mais dafay gis tamit mbokk Modou Modou yi ak ñi nga xamante ne nii tey dañuy lijjanti wàllum tukki lo soxla danaa la demal ci seigne Mor mo ci gëna a gaaw maanaam si lijjanti këyit di nan lay demee manam ku dem ba ag Europe la ku ko lijjanti pour mu am këyit la wala ku bëgg tukki te te Europe la ñaar yoy ban nga ci def. waaw ndax walum ñaanu këyit sa borom yalla cër lañ ci am ndax cër gogu non jegleel yalla la sa borom ndax sunu borom yalla moy xol la ka neex def ko fa ka neex nit ki day nekk fi ni di lijeenti ay këyit mu tekk lool pour genn mi ñu defal ko lo xamantene bu demee saabarom yàlla da koy nooyal ba mbir yëpp tawféex ba ambassade bu mu taxaw dañ koy may mu daal di dem nga gis koo xamante ne day dem ba nekk foofu du am këyit du am maanaam këyit yoo xamante ne dina si mën a yaxantu muy wàllu liggéey ndax këyit dafa bëri ay façon këyitu tukki am na këyitu nekk si réew ma pour wàllum yaxantu muy wàllu liggéey am na yooyee yëpp képp ku si jëflanteel nga am GP ak ñàkk am GP incha allah rabbi bu ñu si xëyee duñ si gontu ndax lool sa borom yalla cëral leen nañ ko ndax luñu mënul duñ ci yak te duñ ci défar lu dul dëgg nak du yag dëgg mo ñëk mo mujj wallahi lañ si. waaw ki nga xam ba mo nekk bitim réew tay te bëgg mu yag fa te bëgg am kay légui mom na la mëna def pour waxtaan ak señ mo bam dimbalé ko ci manam mom mom mom mom këyit di nan la koy jotté li ñuy pëndax lay doon wala ndox lay doon wala li ñuy bind lay doon pour pour mëna a mën koo aar ba nga xamanté te mëna am kay ndax yalla gis nga walu kayit yoyé non am na ñoo xamante ne ñi ngi réew ma amuñ GP ñooñu damay nekk fii defal leen xalwatu wala mal defal leen riyaada pour seen wàllu dëkkuwaay foofee noonu ndax nit ki nag fépp fu mu nekk war na faa mucc war naa mus wàllu këyit yooyu noonu bu fekkee am nga GP am na loo xamante ne dinañ ko ko jox tëjël ko ko niñ ko waree a tëjee ba bu yegsee buñ déggantee si waxukaay yi ñu xamal la nii nga koy defee ak nii boo ko jëflantee bis balaa bis bi dell si li nga bëgg sunu borom yàlla dina ko def bu dañuy déggante ay si ay cadeau tegante si sa tur yu wér buñ ci jubloo buñ ci xeyé duñ ci gontu ndax lolu ndimbalup yalla la té lu né fang nak kèn duko ko jeex de. waaw loolu mooy secret këyit té am nañ ci lu wër lo xamanténi képp kuñ ko défal da nga ubbi sey bëtt té di nga gis té liñ lay défal mom yalla mom euh, gis na lépp té yalla mën na ko ndax wa maa illa bima alimna fa lañ nekk. wa nga xamanté nak mom dañu danoo fi ni té heure buñ déposer affaire yi dëgër dëgër dëgër ban yaakaar sax dañu amatul sens wala dañu amatul wërsëg. ñooñu nan nga mën a liggéey liggéey liggéey ak ñoom ba nga xam te ne bu ñu déposé yàlla dana def ñu may leen waaw wàllu wooyee noonu tamit da si am solo ndax nit ki doo tëb tëb rek ñaanal ko foog nga seetal ko bu baax xool li nga xamante ne moom moo nekk si yarambam bu fekkee dafa tëju nga dindi ko ba mu ti ubbee ko bu ko defee fu mu jublu rek ndir yi day nooy nepp da gis koo xamante ne day dugg si dara mu dëgër lool di ko lijjanti mu dëgër lool buñ jëflanté damay xol sa mbir ba noppi ndax man lepp lu may defal ni rek dama koy yor yor ba paré dama koy xol ba paré suma xolé ba noppi defal la lo xamanténi bokoy mus di mucc tay mus lolou moy secret bi fo nekké fi dina sang sa yaram defaral lako bu baakha a baax ba ambassade boo mënti taxaw wàllu kayit moom foo mënti taxaw pour lijjanti ko saa borom yalla da ci def barke ndax barké rek am solo inshallah rabbi. wa ci walum tejbe ko be ko bobu ñëw sax. day gis ñoo xamante ni tey dañuy déposer seen i pour am liggéey du mën am liggéey gis koo xamante ni musul musul liggéey sax musu koo am. Uh-huh. léegi ñooñu nga xamante ni ñoom danoo tëj ñoom nan nga leen di liggéey ba xamante dana mën a ubbeeku ba am liggéey fii si Sénégal di liggéey. gis nga wàllu tëju googu am na ñoo xamante ne cat moo leen koy def. am na ñoo xamante ne rab moo leen koy def am na ñoo xamante ne sobe gu bëri moo leen koy def moo tax daanaka li nga xamante ne moom mooy mbir mi su ma la xoolelee ba xam ne yow mii lii mooy sa gàllankoor fa laay jaaree wulli sa yaram bi yeesal ko ba mu yees pekk pekk pekk defal la fatxu goo xamante ne ku la gis dina la bëgg ku la bëgg dina la yéene te ku la yéene dina la jox sa mbir di dox wàllu woow noonu noonu lañ koy doxee te képp koo xamante ne sangat nañ la incha allah rabbi di nga mucc de di nga mus waaw mucc ak mus rek a fi nekk boo muccee si bët ak làmmiñ tey mus saa yoo xëyee soxla boo am faj ko loolu mooy mus gi <laughs> waaw waaw. loolu moom leer na ñu duggaat si beneen bi nga xamante ni moom mooy wàllu rab. Mhm. am dafa sonal nit ñi rawatina jigéen ñi da ngay gis ñoo xam ne rab da leen di jàpp ba mënuñoo am jëkkër gis ñoo xam ne rab da leen di jàpp ba mënuñoo am doom gis ñoo xam te ni rab da leen di jàpp ba xam te ni waxuma la waxuma la jàpp jëkkër ak doom sax mais ku leen ni dama laa sax pour ñu gis ko problème la. ñoom lan lan mooy seen kii euh, euh, faj ba xam te mën nga faj ba ni mën na dañ ko waaw gis nga wàllum rab dafa may sew-sew yu si nekk dangay gis koo xamante ne day jékki-jékki commencé nii di daanu sax ñun ni dafa amee rab te rab day loo xamante ne bu xasee ba nekk si yow man bu ma leenee nee jàkk boo amee rab dina xam ne am nga rab bu ma leen nee jàkk boo duggee sama kër rab boo fi dugal du du fi egsi te bëri na ñoo xamante ne ñu ngi leen yenu di leen fi indi ñuy daanu ku fi dugg booy booy génn yaay doxalaat sa bopp yaay dem wàllu woowu suñu borom yàlla danoo da ko teg sunu loxo ndax cosaan ga la la woon démb mooy tey ndax boo déggee ñoo naan kaañ siis mi nga xamante ne moom moo daan létt jinne yi si àllu kaañ àllu kaañ tuddul àllu kaañ kaañ la kaañ kaañ si séeréel mooy ragaluma waaw kaañ waaw mi kaañee dara mooy ragaluma dara waaw léegi kooku sama maam la moo daan létti séeréer yi moo daan létti jinne yi foofu si àllukaañ waaw moo leen moo leen daan létti foofee noonu kon wàllu woowu day cosaan ga te la sa sa te koy jël de su fekkee lu baax la te dëgg sët a koy jël te loolee noonu dafa tënk ba suñu jëmm ji wàllum rab moom bu ma la si wullee moom rab boo mënti àndal bu mu ne bu lay yàkkal bi nga xamante ne day def ngay ngay jékki-jékki di di sëy di gënti daan da ngay sëy wala ngay jékki-jékki di foyee sa kanam wala ngay jékki-jékki bu dee jigéen la ëmb boo ëmb du taxaw wala nga jékki-jékki bu dee góor da ngay waxaale soxna ba noppi ba dara desul lu lenn lu dul jënd loolu diggante boobu yàqu bu dee jigéen la nga waxaale góor ba dara desul lu dul jënd eh, wulli seppi ka bu ba set wicc ni ñu seppee de si yaram non non lañ koy si jembi doomi aadama muy wàllu rab mais rab bu lay dugg am rab dafa am bu baax dafa am dafa am bu bon wala rab bu bon rek am maanaam rab day li naan façon àndandoo ñaar la ndax dafa dinañ la si walu sarax am na àndandoo yoo dinañ la dimbale si walu karange waaye am na àndandoo xam lay si walu xirtal la si lu ni jinne ju baax amee noonu la jinne safaan amee ki nga xamante ne ndax rab sooy sooy judd maanaam sooy judd si àdduna di ñëw da ngay àndandoog moom ku la ne mën naa ko dindi si doomu aadama da koy sempi sempin googee noonu day xam wàllu saraxam loolu mooy sempi gi waaw day xam wàllu saraxam boo xam da koy neexal mu koy teg si yoon woo xamante ni da koy dimbale waaye boo xamul wàllu saraxam munoo ko sempi si doomu aadama ba dindi ka da koy calmer rek tam nit mi ngi calmer rab mu koy gën a sonal waaw mi ngi koy calmer mu koy gën a sonal wàllu wooyoo nag dafa am tegtal yoo xamante ne buñ la xoolee xam ne yow bii la dinañ xam nuñ jëflanteeg yow seppi ko bu baax a baax ba ba dootu la indil la benn jafe-jafe sa kaw si kaw suuf incha allah rabbi. parce que en général nit rab dana ko jàpp sax mais da ngay gis mu nekk góor. nice duñ am benn problème buñ demee bay wax nag waxu takk nag mu commencé mel ni comme mosu koo xam comme mosu koo bëgg loolu lan moo koy faral di def. waaw loolee noonu moo tax dañ leen ne lii di sëy lii di kër. lii di oto lii di jabar wala boroom kër képp ku siy dugg ku nekk da ko war a seet loo duggeeg neen génn seeg neen wàll woowu yëpp dañ ko war a seet da gis ñaar ñoo xamante ne di wër suñ dee génn comme ni ko gone yi defee affaire génn yooyu noonu diggante bi day neex lool lu ku jigéen ki bëgg rek ku góor ki def ko lu ku jigéen ki bëgg ku góor ki def ko lu ku góor ki bëgg ku jigéen ki def ko ñu dem ba dara desul lu dul alxayri gi jënd guro gi ku jigéen ki du mooy ko wan ko ginnaaw kooku noonu dafay ànd ak rab bu fiir goo xamante ne daanaka du bëgg ki nekk kenn ndax rab day day dem ba da ngay ànd ak góor nekk ba alxayri jot ngeen sëy mu yoomloo góor gi wala mu té té tënk ko tënkin goo xamante ne bu naan xëy di liggéey léppam day yàqu bu xëyee fukki dërëm yu mu jëndee café Touba sax du koy të waaw kon loolu gàllankoor la moo tax wàllu sëy moom képp ku siy dugg moo xam kër la wala oto dafa am rab yoo xamante ne dañuy jiitu gars yi foofu liñ naan paaka kenn du ko jiitu si mbar waaye rab dañ leen di jiitu si wàllu wooyee noonu jéem leen indil gàllankoor kon loolee noonu dañ koy dindi toxal ko toxalin goo xamante ne lu wér la bu ko defee yow di nga mucc si rab di nga mus si gàllankoor yi nga xamante ne rab dala koy tere pour nga mus ko muy wàllu xéewal gi. waaw ba si du ma du ma si bàyyeegum. damay waxtaan ak ñom ñu ne ma da ngay jek jek di daw guddii jek jek rek mu melni dafa am lu dekk jékki rek traverser sa kanam wala lu taxaw sa kanam wala luy jéggi ak ay doom loolu timit am nga ci saafara pour chauffeur yi wa walu chauffeur yoy chauffeur yi ñom tamit dañoo nekk ci danger bu metti ndax gis nga walu auto dafa laxasoo laxasaayu jinne ndax moko weñ weñ la auto lu yéme ngom motax auto bi dafa am wara am karange bu wir auto dafa wara am galaj gu wir ba nopi chauffeur bi nga xamante ne moom mooy toog si coussin bi dafa war a am gàllaaj gu wér ndax oto dafa rax waaw raxin googee mu rax nag pare saa nga jékki-jékki dugg si benn yoon woo xamante ne am na kuy jàll ki njabootam boo amee gàllaaj dana jàll ba noppi ngay door a jàll waaye boo amul gàllaaj day bàyyi ba doom yi di ñëw nga tël si kawam moo waral nga dem ba si ba si kanam rek jékki-jékki rek oto bi këpp wala nga jékki-jékki mu sëfee wala mu def dara loolee noonu tamit bari na li koy def chauffeur bu ànd ak cat ba fees dell cat gi sonal ko si yaramam bu baax bu wàccee si oto bi moteur bi dina dina dina kuule wala moteur bi wala oto bi sëfe wala mu am problème tirbo wala mu am jafe-jafe goo xam dina nekk si biir oto bi waaye nag wàllu rab dina tourner mbir yi ba loolee noonu day gàllankoor chauffeur gi ba su toogee si coussin bi sax daanaka lu si bëri day jékki-jékki di sentir ndigg li mu am lu mu siy sentir ba day jàpp ni hémorroïde la te fekk ni yoo rab moom mooy dugg si yaram bi di ko def genre ballonnement googee noonu te du xam lan la rab dafa bëri ay façon yo xam da koy def si nak nag mbokk chauffeur yi nañu ut galaj nañu utal auto bi galaj bo utalee sa bop galaj auto bi ñak galaj auto bi dina am jafé jafé bo utalee auto bi galaj te sa jëm amul galaj yow di nga am jafé jafé kon ñaar yépp da koy utal galaj auto bi am galaj si bu wër auto day naan serveur day naan mhm. waaw ah, leg <laughs> ñu ñëwaat sank ci commencement bi ma ngi gis ay xaatim yoo xam ne da nga bind ba pare. Mhm. xaatim yooyu lan lan lay def. waaw gis nga wàllu xaatim yi. Mhm. xaatim yu yéeme la. Mhm. ndax xaatim yi nga xamante ne liñ naan euh, bal boo xamante ne da koy jam gaynde kenn du ko jam picc. lii lu wéer a ko fiy génne. waaw lu am solo la ku ko mus nag mus lu am solo. wàllu xaatim yi mbind mi rek dafa metti te gis nga ki koy bind ni muy Abdou mee toog mhm. sama rakk la ñoo bokk ndey baay moom mooy bind mbind mi. man kay dama mbind mi ki koy bind xanaa yoo xam te day bind rek te moo tax képp ku la naan ñaan neex na wala ñaan dafa yomb mhm. moom ñaanul day ñaanantu liggéey bi dara yomb si. dara yomb si. soo xoolee xaatim rek waaw lu dul dëgg nag du yàgg. te te ndokk yàlla moo tax xaatim yi képp ku si am benn. ba jëfëndiko ko da ngay def légui insha allah rabbi gis légui sa bismillah sa borom yalla da ci ànd. moom lan lan moo tax dox si walu aduna mm-hmm. ndax kum mu nekk si bëgg nga muccu bëgg nga mus. am walu dunya gi nga gis ni kër yu bax yek auto yek eh, million yek ni ni ni yalla yàlla ko dara di ñaan len ma ma may leen. kene ñaan len ma ma may ko ke non mi nga bëgg ku koy ñaan way nak ñaan fay and ak dara khatim mm-hmm. yi ni kep ku ko def sa yaram walum bayre mom da siy toj réew mi wàllu ubbeeku da siy toj réew am na yoo xamante ne kaaraange la kaaraange googu nag lu waay xëy def si yow lu bon buy gont di ko gisaat si yow waaw. ñu ñëwaat ba euh, gis nga sunguf su yéeme see sunguf see. Mm-hmm. te nga gis eh, xeeti jaas yi nekk si eh, xeeti paaka yeeg yooyu noonu moom tey jii bu nit sànni woon kortu nga jël sunguf si xooyoo ko sotti ko. par force day delluwaat si moom ku la dagg da koy dagg moo waral jaasi geeg paaka gi ñaareel ba bu la cat solo ba mu fees dell buñ ko kiyee rek jox la ko ne la defee ko nii boo ko defee nii si saa si moom moom day loo xamante ne amul ay ñetti fan ak ñaari fan déedéet moom da nga koy def léegi mu war la résultat léegi man samay mbir noonu la jooni jooni googu ne lii moo ko daw ndax jooni jooni léegi fay fay na <laughs> xam nga yeneen gone yu sawar yu gaaw yooyu noonu kii moo leen gën a gaaw da ngay def léegi gis ko amul demal dik mom mom dañ la koy jox nga nga sangoo ko boo ko sangoo da nga siy gis lu leer na waaye wàllu suuru gi. suuru gi dafa yéeme. tey jii nii nii bu ko def ko du fi ba lu lu lu sa yaram day xub xam nga xub. yaram buy xobbeeku lépp lu bon lu nekk sa yaram noonu lay boo suru mom moom day koy xobbi ba ba mu set wicc moom noonu lay doxee moom ndax gaa la waaw yëfi cosaan la. gisaan naa tamit beneen boo xamante ni dafa mel ni comme genre ñax noonu. waaw ñax googee noonu. moom daanaka dafa liñ naan loolu lañ tuddee paaka ñaari boor. paaka waaw ñaari façon ñax la. moom lañ tuddee paaka ñaari boor. moom day dagg fii di dagg fii. moom day dagg fii di dagg fii moom tey jii nii boo ko jëloon wax la liñ koy boolee ba nga laal ko doon milliardaire ko doon waaw moom day dox si wàllu xaalis waaw am wàllu duniyaa lay dox moom si wàllu xaalis lay dox bu baax a baax a baax moom boo ko yoree moom doo doo ko xamante ne da ngay ñàkk dépense waaw moom doo ñàkk dépense wax dëgg yàlla waaw waaw léegi ki nga xamante ne ko kort dañ ko sànni kort ba mu ba pare nag. waaw kañ jàpp kañ sànni kortu mhm. gis nga kortu buñ la ko sànnee ba mu jàpp la dëgg-dëgg. Mhm. da lay xirtal si hôpital. maanaam faju tubaab bi rek la lay xirtal ñu naan hôpital te li gën a yéeme bu la xiirtalee si hôpital boo demee ñoom bu fekkee dañ ne dañ koy opéré dañuy dañuy dindi opéré rek wala xeet yooyu ñuy def yoo noon noonu mm-hmm. day def da da koy def genre saal saal boo xamante ne boo laalee fi muy gën a yéeg mm-hmm. moom noonu lay def di gën a yéeg waaye na korte googu buñ la ko sànnee ñu sànnee la ko comme dëkk bu sori comme ça ma jël sama mbokki séeréer yi sax mm-hmm. ñu sànnee la ko Morola nga nekk fii fii ma toog nii nii nii laay laa dindi léegi man si saa si amul dikk. côté bi nga xamanteni ni nii moom bob bu la dalé bob moo gëna metté fat ka bi nga xamanteni mom nga mom gis nga ko yëfu jàmbur. Mm-hmm. ba fa la tuddu waaye amna na jambar yo xamanteni ku sop ku nek mu dal la xam nga ku sop ku nek aduna fi kep ku fi nek da nga wara fagaru fagaru gën faju mm-hmm. bo nekké si aduna fi ni ni ni bëgg muccu bëgg mus utal sa yaram bi kaaraange ba bo doom bee jambar nga bañ ko jël. nit ki mën na sànni korte bu tëb tëb dal la yow da nooy bopp moo tax ñu naan euh, mbooloo ku si gën a nooy bopp la mbir di daal lu wér la jarul di jarul di dindi sikki sàkk ndax la tax ñu wax leen loolu dañoo bëgg képp ku nekk si biir euh, Sénégal ndakaaru njaay wala àdduna bi del jug sa yaram del fonk sa yaram xar fa fuuxa nag ku ko xeeb mu ni la fuuf yóbbu la waaye nag man bu buñ jëflantee dama lay tënk si wa takuunul jibaalul kal ehnil man fuusin la xama lañ wax waaye man dama la naan wa takuunul jibaalul kal ehnil manuus man bu ma leen nee manuus googee noonu yooyu ay kot la <laughs> waaw la <laughs> waaw waaw yooyu noonu maa koy defar te fii lañ koy ewee ndax ëwin gi dafa am sarte dafa am yoon dafa am nuñ koy ëwee ndax dafa am nu muy mel am nu muy jëflantee ak sart yi mu koy jëfee moo mukk yàlla mukk waaw waaw am sama sama gàllaaj moom fii lañ koy ëwee te dafa am nuñ koy ëwee am nuñ koy jëflantee ndax wàllu liggéey bi du ma si goneb kenn wàllu liggéey bi du si goneb kenn ndax yëfi yàlla du yëfi gone waye nak yalla amna na sañ-sañ jox ko goné goné gu farlu go xamantene leppam jeunesseem yépp am da ko jël jox ko yalla ndax yalla dafa né jox len ma sen ndaw ba téel len sen mak xam nga dafa né man kana lillahi kana laahu lahu ku nekkal yalla la yalla nekkal yalla ku ko nekkal mu nekkal ku ko nekkul du la nekkal amna na fulla ju mat seuk waye duma ba sama lepp juddu aduna gu neex ni nii jeunesse bi nim neexé ni goné ye yee këtti gi nim neexé ni ma ba lepp jublu yalla bima ma ba lé xawma lén lu dul liggéeyal yalla sunu yo su ma ñaanee te yàlla nangu ko man war naa seetaat saa bopp moo tax man la liggéey bi du ma si goneb kenn gàllaaj gi nii dafa garaaw ndax la tax soo gisee am na xeeti seetu yu si nekk moom boo ko takkee tey jii nii nii jinne buy fàdd du la fàdd benn élèves yi nga xamante ne dañuy nekk si wàllu école tey saa nga gis ñuy daanu fii di kërti kërti ku ko si am Euh, jinne maymuna xeet goog yooyu noonu <laughs> ñoom doo seen boo ko takkee moom dala naan fiil nga danga ko naan fiil dem sa yoon ñaareel ba ñi a xamante ne dañuy ut wàllu ex mooy xaw nañuy ut wàllu examen befen beeg ak bac bac beeg yooyu noonu mm. moom boo ko utee moom ba ma boole koog big bi ma la koy joxal bu ma la ko joxee incha allah rabbi ay oral sax doo fa nekk moom da ngay jàll defi ndax xale yi koy defal ñëpp xam nañ ko ñëpp ku fi ñëw moom de da ngay defaat leneen kon loolu tawféex la waaye nag dafa ànd kaaraange kaaraange gis nekk moo doy waar ku la tey liggéey tey jii xëy def la ko léegi léegi huit balaa une mu dalaat si kawam moom dóor fayu la. bala ñëw tëj xam nga loolu lan waaw ndax Cheikh Mor mi ngay gis nii dafa juddoo parcelle yaroo parcelle màggee parcelle yaayam nekk parcelle baayam nekk parcelle. ay magam nek parcelle ay rakam nek parcelle parcelle 1 ba 26 fo taxaw ne Cheikh Mor jaalibatul maraaxib wala nga ni ñi sant mbeng gone ndaw yi dañuy tey sa loxo indi la ba seen kër kon lolu ndimbalup yàlla la ta man nek fi yàlla dogal ma am ay talibé ndax man mi Cheikh Modou Mbacke mu seigne mustapha basirou Mbacke mu seigne basirou Mbacke mu seigne Touba moma séxal seexal cër la cër goge nonu ndimbalup yalla la su bu yalla dogalee ba sëñ muntaha bakke mi may def samay bis mu yoni ay dooma ak ñom sëñ Moodu mbakke ñu ñew di tew si bis bi kilifa yi di bayiko fu ne legati kesse naxuti béy te luddul deug du yag ñaan goge nak bay ku ku am jafe-jafe ne nañ dem si Cheikh Mor wala nangam lolu ndimbalup yalla la man bo yegsee sama kër bala dara dama lay defal ba nopi waxtaan ak yow ding fi lek ding nga fi naan te tay ji bo ñewon tay ji ni sama kër nga jox ma junni si gàttal man balaa ngaa génne dinaa la jox fukki junni ndax li nga fiy lekk lu nekk rek buñ ko xaymaa dina ëpp loolu rawatina boo kiyee man maa lay jox paas na noonu laa mel noonu la lu suñu borom yàlla dogale moo tax koo gis ku ne rek danaan dem leen si Cheikh Mor. dama euh, mm, laa ko mën mm-hmm. macha allah day gën di yokk gën di dëgg la waaw bis boobu noonu dama koy defal bisub jaalibatul maraaxib la inte onze laa ko daan defee sama kër yaay ma ñëw fii muy màgg te bis bu ne bu fekkee ki tax nga koy def dëgg la bis boobu saa chaque année day gën a day gën a màgg bi ma koy def noonu yàgg na waaye ren ku gis bu ren bi xam ne bis bi kawe na njortu lool lool lool te saa su ne at bu ñëw noonu lay demee te loolu ndimbalu sëriñ bi la te mbàkke mbàkke yi faaleen yi si yéen ñi sant ñaseen kulluhum canaba du ma bàyyi ndax man waxta si moo bi abdillahi jamihan man falaay doxee ndax bi sëñ mun sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér laataaka muy toog bi sëñ Siidi Muxtaar Mbàkke ne bugguma koy xaajale diggante murit ak tijaan ak laayen ak noonu man falaa tënku moo tax sama néeg bi boo duggee di nga fi fekk photo maam ma Abdou di fi fekk photo sëñ Babacar photo Seydina Limaamu di ko fekk su photo Baay Ablaay Caw di nga ko fi fekk te man taaliba Sëñ Tuubaa la gëwuma kenn ku dul Cheikhul Xadim kon loolee noonu rafetal gi te kër diine gu nekk am naa fa cër kon loolu ndimbalu yàlla la kon yàlla bu yaakaar tas wala nekk man. <laughs> kon maa ngi wax ñi nga xamante ay kayit nga xamante ne nii danoo nekk Europe bëgg am papier tamit inshallah allah da ngeen am keuyit ak ñi nga xamanteni ni seen dañoo dëgër leen manam bunt buñ fëgg mu wo kong ñoo leen si sëñ Mor seeti ko sëñ Mor ko ñu lay bàyyi nga tàggoo. ah jërëjëf suñu vie kontaan nan lool ndax lii moom tawféexub yàlla la. di ñaan eh, li nga xamante ne mooy melokaan gii nii. tawféexub yàlla la. ndax melokaan dafa bëri ay melokaan de <laughs> lii li mu li mu ëmb moo yéeme. bi rek lu yéeme la. Ah. bi rek lu yéeme la. moo tax ndox la. taxawaayu ndox la taxawee te ndox dafa yaatu de lu wér laa lay wax te sekkere laa lay wax mhm. lii moo raw géej de xam nga géej boo demee ba fi am na fu mu yem mhm. waaye lii moo moo raw géej te lii nii dina daj àdduna te dana ànd ma la ko waxee neexee nga date bu la nga note mhm. dina daj àdduna te dina mel ni mbàccum gerte te nit ñi dinañ daw dinañ ko wuy si te dina am barab boo xamante ni dina mucc ayib lool ba ñëpp dinañ si teg seen bët te wa maa shahid naa illaa bi maa alim naa man lépp lu may wax rek dañ ma koy ilham dañ may déene ma naagam ak nangam te dinañ fekkee déwén dinañ gudd fan dinañ wér kontaan naa lool si teewaay bi ngeen teew dagg seen yitte ngir sama jëmm ju xeeba ju tuuti gii di ñaan jéego yi ngeen dox ba yeg si fii yow sa jëmm ji fii ak ak sa caméraman bu baax bii saa borom yàlla yëkkati leen yokk leen yéege leen defal leen lu kawe seen jort ci barkeb jaalibatul maraaxib ndax man am naa cër si jaalibatul maraxib bañ naa ko ba ku ne Cheikh Mor rek xelam day dem si jaalibatul maraaxib ku ne jaalibatul maraaxib rek xelam day dem si Cheikh Mor ba ma jël sama doom tuddee ko soxna jaalibatul maraaxib te mi ngi noon di day doxi ay soxlaam kon loolu cërub yàlla la yàlla na leen barkeb jaalibatul maraaxib topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di santaat sama waajur bu góor sëñ Moodu Mbeng bu baax a baax ak soxna yaa awa Mbeng sama waajur bi ak sunu xalifa sëñ Moussa ak sëñ Jibi yàlla na yàlla defal jàmm di sant sama ñaari soxna yi àjjana ak si di leen ñaanal feexu sëriñ bi topp leen ak njaboot gi di sant sëñ Abdou moom nga xamante ne moom moo yor mbind mi di sama rakk joojee noon saa borom yàlla kattanal ko guddal fanam wéeral cëram ndax ku ñëw fii fekkoo ma fi si moom ngay jaar kon tawféexu sëriñ bi la gërëm sama mbokk caméraman bi Mor Talla di doon ñeneen jox daje ak benn émission bi nga xam te moom mooy kër ëtt Maamani ni incha allah ñu leen tàgg ba beneen jërë ngeen jëf